les causes ak euh, les solutions. Euh, Mamadou man damay am gàcce sincèrement bu ma déggee sama gars yi li ñuy wax Mamadou am réew ndaw yi ko dëkkee 2012 ñu am njàqare seen yaakaar tas ci ki fi newoon muy mhm. Ablaye Wade Macky Sall ñëw jaay leen boppam ñëpp xirtalu daw topp ko. muy koo xamante ni nag mën nañ koo baal lu ne ba mu des lajj ndax lan ndax Ablaye Wade li fi xew lépp ci kanamam la xewee mhm. bi muy jël réew mi booba fekk na bu fekkoon dañ naan apprenti moom noppi na ci étape boobu mhm. kooka daa waroon ñëw tas bi mu tas yaakaaru gone réew mi mënuñ ko koo baal Mamadou douze ans la Macky Sall yor réew mi at bu jot mën a li ngeen ma joxoon doyul dolli leen ma. on lui a donné quarante mille milliards boo xamante ni c'est dans le budget ci xaalisu askan wi pour lan pour mu noppal doomu aadama yi. mais loolu am na fu mu feeñ quarante mille yooyu. feeñul fenn ah non non pas ça vous nit dafa am loo xamante ni daf ko mënta ñàkk ndax mooy téye ngoram. Mhm. mooy mu am liggéey mu am jàng am ay éducation bu ñu la joxee Mamadou ñi Macky Sall àndal ba 2012 ni ñu développé woo ñoom ci seen jëmm yi ci seen yokkuteg bopp <laughs> réew mi yokkeewu ko Mamadou tu imagines Sénégal 33 millions de litres de sangara lañ fi jaay. ça signifie quoi. classe classification de, de à la consommation de la bière. loo bëgg wax foofu. mais xale yi. ñàkk nañ yaakaar ñàkk yaakaar goo xamante ni mënatuñu sax lucide dañuy màndi rek à Grand Yoff y a plus de quatre cent quarante bars Mamadou plus de sept mille xale génn réew mi dem tukki mm-hmm. Jakarta xale yi léegi tu vois de maîtrisards ay xale yu am master 2 Jakarta la ñuy dawal. vente en ligne bi ñëpp ci nekk léegi. vente en ligne xale yi mais Mamadou Macky Sall bi muy ñëw. ëndaalewul alal gu mu nañu jox leen ma ko ma defar réew mi nañu waxante dëgg mhm. lu mu wax ñu jox ko ko kooku amul lu muy wax waa Sénégal ñii waruñ sax taxaw di jéem a am lu ñuy expliquer waa réew mi lu dul rek baal leen ñu àq nañ dem mais la question ma laajoon Moustapha Sànq est-ce que vous êtes conscient que li ngeen di critiquer ni jamono ji ëllëg bu ñu leen joxee réew mi bu ngeen déroulé tout yëf yi continuer dañ leen rappeler seen propos yi ngeen teniroon non manul ne parce que manque de volonté mooy problème mu ñii Mamadou tu vas dans le BRT lan lañ lay wax ñaati milliards lañ ci def mille nangam milliards plus de mille milliards. BRT dina am njëriñ bu pare non on dit pas le contraire tu penses que volonté boobu volante politique boobu bu ñu ko amoon ci liggéeyu ndaw yi ñu injecté ci mille milliards ba pare rek def ko ci defin bu sell ndax la problème mooy dañ naan laan créer nañ agence bi créer def nañ fii cent milliards deux cent milliards trois cent milliards mais moom Mamadou naka la nit ñi di jotee alal boobu y un désordre dans ce pays là. boo xamante ni Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko fi semé c'est des gens yoo xam ils n'ont plus rien à dire à cette jeunesse là xoolal xale yi ni ñuy génnee mm-hmm. boo demee ba ndaw réew bëggatuñu lu dul daw génn réew dee moo leen gënal toog seen biir kër yi pas yëpp nañ dañ continuer yor seen kër yi ki penses que ça c'est loolu loolu noppalu na pas yëpp yëpp yëpp mais da ngay nangu ak man aussi que ne prendre la mer c'est pas la solution non waxuma solution la mais Mamadou dañu ne nit bu nekkee ci njàqare sago dafay tàqali ko moom comportement bu ne mën na ko am mhm. mais ku leen di dalal sax amuñu ko seen yaakaar gi ñu amoon dese woo ko sax bañ lonk ko ci ku mel ni Ousmane ko mais xoolal biñ ko tëjeeg léegi am biñ ko bundaxataaleeg léegi gone yi dafa mel ni sax bëggatuñu Sénégal balaa ngaa xam ne nag réew mi jéppi nañ ñii ñii ko yor tey ñu ubbi woon aéroport bi ne ay ne ne ne passeport wala visa téyeetu fi kenn en quarante huit heures génn réew mi moom ne les choses sont sérieuses ces gens là amel nañ ñu àq non n'ont plus rien à nous dire merci beaucoup